doo ko def. sàmbal gi nag Fatou Ndiaye. da nga doon taxaw bi mu wax ak ñaari mbay mu soog a def. na ko fekke woon woowaat leen man ko fekke waat. na eh, ko fekke woon ñu waat leen na ko fekke waat. ñu leen di day doomu dina tubaarkaal ñu bokk man benn maam te lu saa ñu dëppoon përngal mënu ci dara dañoo bokk benn maam nga dëkk tubaarkaal la ci tañ moo moori taaw ma moori ma dëkk daal di tubaarkaal la yaa ngi may dégg balaa maa joxe no ngay damay ñëw ci man ndax bi ngay géwél la tubaarkaal la baaxuñu waaye bu ñu xool ba la fa baaxul barke suñu barakam maa ñëw may leen ma ma yëkkati rek bu ma dagg jëfi ni rek ma ne ma yëkkati yaa ngi dégg sama sama nijaay rek laa jox sama pay ma pàcc dañu maa nijaay la xale ñu ko bëgg ma tubaarkaal ma ñu la nijaay waaye dañ maa jox tër wi te as tër bas tey fonk ba ku la ko joxoon amu ca as tër bas tey fonk ba ku la ko joxoon amu ca bu ñu nekkoon ci place Mame Ndiaye kay tëraay ko bu la ko jox tubaarkaal doo ma doo ma tërale man maa tërale man jéeri boo ni man mi nga xam ne tubaarkaal ndaa rek laa dëkk man mi nga xam ne dootu may mën si la ñuy wooyee sama yaay alaaji Abdoulaye tey la ñuy wooyee sama baay yaay alaaji Ablaye Mbaye la ñu wooyee sama gàcc mbokkum yaay Fatou Mbaye mbokkum yaay Kuma Mbaye tubarkàlla dana wóorul balaa ngaa xam ne ci gëm ko daal jiiri ko ni ma gisee gi daal itam moom moo di taw moom moo di moom moo di mën num daam ndeel a jàmbaaroo ba kontam na di réer waara di dara nga indi Xuja Mbaay maman mii damaa tubaarkaal bi jaay barki bi mu la ñu ma tuddee doom ji fii ci ginnaaw Kër Massar bii man tubaarkaal la gàtt rek laay jooy ak ak ak ak tubaarkaal la doon xale waaye doom ji ma wuy ma ci ku ma boppale dara ñaari bi ci Zane Mbaye Guèyeul maman maman ay waay di ngay ma lees ba ci non non su dee di laaj ma sama doom waaye xam nga li ma bëgg a wax. li ma bëgg a wax tubaarkalla sama rakk yi dañoo bokk palaat ba dara ñaawul. waxal loolu sa mbay ajara dañoo bokk palaat ba dara ñaawul. ma bëgg ma loolu tubaarkalla. naam koomate ba ñëpp la ñu maa ragal. yaa ngi fi ba teew tubaarkalla ba mu méttee. xam nga lu mu doon lu waay mën mu jeex. maa ngi la sonn ndaw kaay yi doo ko jëndee doo ko jëndee dara. ay la doon ay ni bëgg a dem Koungheul. ñaari gën ci Zambay. ñaari gën ci Zambay góor bi. ñeent gën ci Zambay tubaarkaal nga xam ne ko sax. waaye bàyyi jooju yóbbu ma ci bàyyi bu dee bi tam ndox dem jaabal. ñeent bi ñeent gën ci Zambay. juróom benn gën ci tubaarkaal ci Zambay bi nga xam ne mbokk doom lay tontu biir ci Zalmay nga xam ne barkaale Grip donc la Calcio donc lay jaay ak Cuuraay bari gëm lool. quarante mille Zalmay. Zalmay yaa am jox maa dañoo bokk mel na maam te misaal man bi daa yëg ak mënu ci dara. waaye bu ma jàpp naa sa yëpp naa waaye bokk mel na maam te direct benn la barkaale da bokk di teg moom moo di ma dëkk naa kii. fukk nit ñi ci Zalmay sëy bi yàlla na doon benn sëy yàlla boo sëyaat ba wax yàlla boo sëyaat sama rakk bi yàlla doon sa dernier sëy sama rakk bi yaayu sëy yàlla doon sa dernier sëy magay magay magay rek laa joxe magay rek. ay ay ay si dara yaa ngi koy tubaarkalla macha allah ci place ba muy jaay tubaarkalla ban boo ñaan téeméer bu bu baax tubaarkalla foo dem yóbbu ko loo am may ko soo gisee tubaarkalla muy dandangi dama sax ma rek ma dina jàpp ma mu ne ma daf ma dina jàpp ma tubaarkalla mu ma waay ne tee xam naa ko magay dara tubaa doolo doolo pour doo jàngal doo xaali xami ànd ak kenn bu ci bu ci li wala la gën xale bi sa la ko yéen rond-point dama waaw Adama yokkul loolu. yéen borom bay bi nee na. tey la ko woo. waaye kiiwee la te kiiwee fa nga waree sa kaw de. moo la jox ñetti junni. tey borom bay bi dinaa bëgg ci jiw. jiw boo wéyalee. jiw boo wéyalee. am ne mbay doon dangay daw ba ñeenti junni. ñeenti junni tey la ko woo. cër yëpp cëru Zal Mbaye. ak Thierno Nogoy Kara moo ma ci gën a ñor bu ñu ñëwoon te indiluñ ma dara sax kontaan na ndax dama leen a bëgg ba bu ma leen di xool dañoo sincère ci man barke Serigne Sall lii yëpp su ma leen Souleymane. Karbala ma ngay doon xaar tuuti ndax tubaarikàlla suba ba